بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت والصلاة والسلام على من شرفه الله بالرسالة التي ثمت وعلى آله وأصحابه الذين هدى الله قلوبهم للإسلام فاهتدت ورضي الله عن الأولياء المؤمنين الذين كان لهم في رسول الله أسوة حسنة أيها الإخوة المؤمنون أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen bokki jullit yi fi daje yépp maa ngi leen di nuyu di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu mag di nuyu ndaw bu loolu amul rekk àdduna tukki waaw mbooloo balaa barkeel dafay rax day am mag am ndaw am góor am jigéen waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu njëkkee woote xale ya daw ñëw wuy si ko jigéen ña daw ñëw wuy ko magu Quraysh yi dem toog ci pénc ma di ko jëw ni xale yaak jigéen ña dong nga dem day wuuji ko mag ña xam ne ah kon nag ba boo ngeen takk seen bagage te wuti fu ngeen dem waaw ndax ndaw ak jigéen ku ñu njëkk wuuji gi te ñoom ñooy nekki mag yi ëllëg kon bu defee ci ñoom li mu def ci ñoom ba ñu màgg ci seen kaw yéen dootu leen xaj ci dëkk bi waaw fa tabaarakallaahu kon yàlla na ko yàlla yàggal ñuy jiital ci nuyoo bi itam fa tabaarakallaahu suñu kilifa yu baax yi nga xam ni ñu ngi fi teew tey mu di le consul général ak ki nga xam ne ni moo topp ci moom ñu teewal fi ambassadeur bi teewal fi itam gouvernement du Sénégal yépp itam fa tabaarakallaahu di nuyu ñëpp nag waaw dafa guddi waaye bokkoon na ci li ma yéene woon tey moo di su ma ñëwee dafa am benn tawassul bu qaadi iyaad def ci yàlla dama waxoon ni bu ma ñëwee lu mu gàtt gàtt danaa jox alaaji mbay mu jàng ko ma barkeelu ci waye comme guddi ta te tàmbali naa ba nopi xana suma ma mu barkelu ci tuuti moy li ngeen di min ñu diko wax allahumma salli ala sayyidina muhammad waaw waaw allahumma salli wa sallim ala nabiyyin ata bil huda wal karam salatan tadumu wa tabqa ila qiyaamil anaami والله واو واخنا nañu ni ku julli ñaari rakk te yàlla tax boo paree nga jàng tawassul boobu ba mu jeex ci aajo du fanaan biti waaw du fanaan biti moom xasida xaadi ayaat boobu mag ñi fonk nañ ko torop daawuñu nelaw guddi mukk te jànguñu ko waaw fa tabaarakallah ñu nuyu ñëpp itam ni ko Alaaji Mbay waxe li mu wax bu loolu amul rekk Sénégal tas mooy mbooloom diine daje murit yeeg xaadir yeeg tiijaan yi seq ko su bis bu jógee Sénégal Sénégal tas waaw ah, kon nag nangeen ci jàpp lu ngeen mën yal na yàlla saxal leen ci yal na yàlla may leen guddik tey ji ngeen yàgg ko def fa tabaarakallaahu ñun ñëpp ñu yàgg ko fekkee waaw fa tabaarakallaahu dama fi ñëw itam pour rek wéttalente ak yéen waaw waaye gàmm gi am na borom alaaji mbay mooy borom gàmm gi waaw yéen yéen tudd gàmm waaw ngeen woo ko mu bàyyi yitteem ci ndigalu kilifa yi jóge Sénégal ba fii te ku nekk xam na ni gàmm buñ koy wax woy moo tax waaye dama fi ñëw rek pour sànneenteeg yéen ñetti kàddu fa tabaarakallaahu mu nekk guddi gu nga xam ni nag moo di guddi yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yàlla daf ko tagg ci alquran moom yonent bi taggaw ko ay maamam de taggaw ko itam jikko yi mu xam ci moom yépp benn jikko la ca tànn tagg ko ca waaw bari na kuy jàng aaya bi te boo ko laajoon jikko boobu tey ban la du la ko wax mooy wa innaka la ala xuluqin azim wa mu xey xey wax yonent bi niko amna am jikko bu nek ci yow bu ma neex man yalla mu ni ko jikko bobu moy lan mu ni ko gën ñépp te mu soko wan kenn mosuloo koo wax kenn mu ni ko ñi bind ñépp ya leen gën mu ni ko waaye mosoo wax kenn mosuloo koo wan kenn wa te lu ne ci suuf rek waaw moo tax waaw waaye bu ñu ko waxee mu ni innama ana basharum mislukum maak yéen ñoo yéen a yam mu ne nag kon nag benn yàlla boobu ku yaakaar dajeeg moom ëllëg na nga fexe ba bu mu la bokk kenn yow tam bu ko boolee kaneen ah, noonu rekk la toll fa tabaarakallah su ko defee nag ah gàmmu ngeen tudd tudd daayira am na sax benn nit bu ma yónnee benn leetar bu yàggul ni ma waaw mënuloo fexe ba gàmm yi nekk benn parce que léegi ñaar la te dama ragal mu dem ba nekk ñett wala nekk ñeent waaw mani ko bu ko entente lalee junniy gàmm mën na am ci turu yonent bi waaw ndax liggéeyam moo yaatoo noonu mm-hmm. Mm-hmm. waaw

benn bi sax ëpp na waaw su ko defee nag li ma fay waxtaane tey ça n'engage que moi waaw ça n'engage que moi donc man maay wax loo xam ne ni xalaat bi ci man la jóge ku mu doy nga jàpp ci ku mu doyul nag nit liberté moo egg foofu ci lu ko doy mu jàpp ko lu ko doyul mu bàyyi ko waaw dañuy wax nag ni ñàkk déggoo ñaar a koy waral ku jëkk bi mooy ñàkk waxtaan waaw waaw kon nag su waxtaan amee rek déggoo am waaw walla ñu dem ba mu wóor la ni ñi déggoowul dañoo bokkul bëgg-bëgg waaw ñu bokkul bëgg-bëgg nag mënuñoo ànd ba faw waaw loolu la yàlla dogal ñaara fi nekk ku bëgg a naaw ni njanaaw ak koo xam ni raam ni mbët la bëgg mënuñu ànd waaw njanaaw ak mbët mënuñu ànd waaw moom nag njanaaw yi kese ñoo mën a ànd bu kenn ne fër ña ca des ni fër topp ca kawam waaw wala benn mbëtt mbëtti kese bëgg ànd bu kenn raamee kaneen raam topp ci sa kaw waaw wante nag dafa am lu xew li xew mooy dafa jafe dem ba nekk mag ya nga paase yépp nga bàyyi ko farata de dafa jafe nag waaw dem ba nekk mag la nga paase yépp nga bàyyi ko farata de dafa jafe waaw ndax imruul qays dafa dem ba magal jaaxle ci boppam ndax mu tàmmoon ba mu dee ndaw te yu ci bare bari mënu koo bàyyi ba mu jigi nag muy dindi di dindi di dindi ba mu def ñeent mu ni daal mën na bàyyi mu tàmmoon yépp ba mu def ñeent waaw jazaatu walam ajza minal ni majza وعزيت قلبا بالكواعب مولعة وأصبحت ودعت الصبا غير أنني أراقب خلات من العيش أربعة فمنهن قولي للندامة ترفقوا يداجون نشاجا من الخمر مترعا ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا أن يفزع ومنهن نص العيس والليل شامل تيمم مجهولا من الأرض بلقع خوارج من برية نحو قرية يجددن وصلا او يقربن مطمعا ومنهن سوف الخود قد بلها الندى تراقب منظومة تمائم مردع امرو القيس دفني مجدكنا واو ما دال دي تاقوك ندونك تشكرا فوربا مدم مدم واي موني تقلي كومبا دفنا تمن جاخري بونغا خمني waat naa ci yàlla ni tiit naa tiitaange joo xam ne defoon naa ni duma fanaan ndax tàmm waaw waaw l'habitude est seconde nature loolu la tubaab wax tàmm na la mu tàmm ba ba léegi nag mag dikk ci moom mu ni dina ko bàyyi mu ni waaye yëpp nag mën na leen bàyyi ba mu def ñeent ñu ni ko ñeent yi mooy lan mu ni bu jëkk bi mooy nee na ma paye samay nawle ñu daje ci bistro bi nee jënd xeetu sàngara bi gëna a foor ci sàngara yi nee su ko defee cocktail lay doon nee na ñu faat ko faat ko faat ko ba mu fuur nee ñu di ko awante suñu diggante mu ni boobu moom mën a guma ko bàyyi waaw bu ñaareel bi nee mooy ngawar waaw nee na fas naaru góor wi gëna rafet nee ci dëkk bi nee na ma war ko neena nga gis tànkam yi buy jam doj yi nee na doj yi tax ndax doole waaw te nee suñu rabee suñu rombee eh, nagu njaay àll yi neena dëñ leen di tiitloo ba boo xoolee seen nag yi bët yi neena gis nga gis mu ta ndax rangoñ ndax xamatuñu nan fan lañuy jaar ba rëcc fas wi loolu yépp ci melal mën nga war waaw parce que yooyu yépp bu jëkk dañ la ko daan jàngal mu ni boobu moom mën aguma koo bàyyi waaw mu ni bu ñetteel bi nee mooy ba guddi sama xel dem ci jongoma nee ma war gëleem ñépp defe ni damay dem pour faji gàcce nee na ma dàq wuti dëkk boo xam ni dama fa amoon wëllëre démb bëgga a joon koo gis nee na ñëw di ko seet si mu ni boobu itam mën a guma ko bàyyi bi ko ñeenteel nag nee na dend ak sa njarbaat ba sa yaram tàng nee na sa xel dem ci moom nga fekk ko muy nàmpal waaye kersa gi jàpp na la parce que ku nekk xam na ni jariñoo sa jarbaat rafetul waaye nag nee na nga dema dem ba xamatuloo fan nga koy jaar nee na nga fab say tuñ nee teg ko ca lex ba bu nit yëngoo nee na nga daw nee na boobu mën a ko bàyyi waaw su ko defee ma ni ko ah, yow kat kon kon kon kon nga mën a bàyyi moom xaw ma lan la waaye yi nga mënul bàyyi moom benn baaxu ci waaw ko defee nag yu jaddid na waslan loolu ma ci intéresse yu jaddid na waslan aw yuqarrib na matmaa adduna ñaara fi nag waaw kuy beesal sa wóllëre ak dëggu yàlla waaw walla ku am lu sa bakkan tàmm waaw du dëgg de waaye sa bakkan ko tàmm ba mënatuloo koo bàyyi ñoom ñaar nag léeg-léeg dañuy niroo léeg-léeg dañuy niroo te duñu doon benn waaw waaw kuy beesal wóllëre ak dëggu yàlla waaw ak ku dem ba sa bànneexu bakkan jóg nga am loo xemmem jóg di ko doxi ñaar yooyu dañu niroo te du benn waaw li ma leen ciy jox comme exemple mooy doj wi nekk ci diggu yoon wi nit ubbi buntu këram te su ko sësul ngelaw li ñëw tëjaat ko te bëggul bunt bi tëju mu dem gàddu doj ba ñëw sëse ko bunt bi moo ki fekk doj ba ca digg taliba ba moo xam ni mën na fakkatal nit wala mu fakkatal fas mu gàddu ko dem yóbbu ko tege ko fu mu dul fakkatale jëf ji benn la mais intention yi du benn kii bakkan moo tax mu di ko def ka ca def yàlla moo tax mu di ko def du benn dañu niroo nag ndax jël bi benn la jël doj benn la waaye kële dafay faj bëgg-bëggam lu mu xemmam mooy bëgg na lu téye buntu këram kii la muy yéene mooy bañ jaamu yàlla loru waaw jëf ji benn la wante niroowul waaw su ko demee nag la nga xam ni ni moo ci am solo rekk te am ci solo moo di nanu jéem seet nan lañuy def ba xol yépp nekk benn moo gën ci ñun moo gën ci réew mi moo gën ci njaboot gi yépp fa tabaarakallaahu su defee nag ci biir waxtaan ñu leen ci fàttali waaw xulawunu waaw dañoo fàttali ndax ci kàttanu yàlla li ñuy yëg mooy am na xéewal buy ñëw waaw waaw te li nu yëg mooy waajalu leen ko ci kàttanu yàlla laa wax am na xéewal buy ñëw te li nu yëg mooy waajalu leen ko parce que su ngeen ko waajaloon yéen ñépp di ngeen nekk benn waaw te yàq nag baaxul waaw defar tabax moo gën yàq waaw yàlla ngi dogal famille bi tey ñépp benn lañu waaw famille bi tey ñépp benn lañu waaw li yàlla dogal mooy suñu maam bu baax bi alxaaji abdul aziz moo fi nekk tey yilif njaboot yi yépp waaw dafa am nag nu mu tërale ku fa ñëw te am soxla daara mu yebal la ci sëriñ moosu waaw ku fa ñëw te am soxla njaboot mu yebal la ca Seyid Abdul Aziz Junior waaw ku fa ñëw nag te am soxla pas-pas mu yebal la ca sëriñ Moustapha ca Ndakaaru waaw moo waral koo dajeel rekk am na ku mu féeteel waaw waaye féete ba nag na ko yéeneen te jàmm lal su ko lalul kat féete ba aada lay doon waaw te bu dëgg taxawee nag ñépp di jaam yàlla rekk di sang waaw bu dëgg rekk taxawee féete aada waaw ndax nit ñëpp jaam lañu yàlla rek mooy sang waaw koo yaakaar laa la wax koo yaakaar ci àdduna bi yërëm nga ko bëccëg waaw kon yàlla mi ñu dul yërëm rek mooy sang loolu la yàlla dogal su ko defee nag fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla dimbale nu ci waaw waxtaane nañu ko nag ci biir ay yoon waaw dafa tolloog am na ñoo xam ne nag amuñu wax yi ruq lu ñuy wax ci biir néeg rek mën nañu génn ca mbooloo ma ne ko tàyyi ñëpp dégg ko waaw fa tabaarakallah loolu moom sunu yéene la ngeen dimbalenu ci waaw fi zahiri nag wal waaw su ko defee nag la ca des moo di daayira ngeen tudd waaw ci wàllu daayira nag ngeen tànn mustarshidin wal mustarshidaat muhammadunil mustafa si di seen gi waaw kon nag man lépp lu ma ci def ak fii yéen rek moom laay jàppale waaw te ñun kat lanu bokk yéen xamu leen ko xam nga ku ko xam góor gu baax ku nekkoon Tiwaawan ñu ko daan wax seexul xalifa radiallahu taala anhu moom moo xam li bokk waaw sëriñ Cheikh dafay def waxtu woo ko ne dama bëgg a def nangam mu la boo demee wax ko seen maam man duma seen kilifa dama bokk ak yéen kilifa waaw woo ko tàggoo dara mu ni la demal ba Tiwaawan nga wax ko sa parce que yéen dama bokk ak kilifa wante man duma seen kilifa waaw looloo tax bi ñu demee ba ñu wax ni dañ bëgg a dugal école tubaab waaw booba fekk na góor gi nelaw waaye booba jigéen jaa ngi dund waaw jigéen ja nag moo nanguwul waaw mu ni daal nañ ñu bàyyi ci daara ji parce que jiw du ñàkk waaw jiw nag foog ñu tànn ko lu ko moy boo jiyee lépp bu xar du sax boucher du sax waaw moo tax jiw foog ñu tànn ko fa tabaarakallaahu sëriñ Babacar tem moo nuy protégel boppam ci lu ma xam man waaw moo nuy protégel boppam ci lu ma xam xam naa tey mag ñoo xam ni ñu nga ca àllaaxira moo leen fàdd yóbbu leen àllaaxira ndax ñun waaw su ma neexoon mën naa leen di lim fii ba fajarta duñu jeex waaye nag jaru ko ndax li nu fi dajale moo ëpp faratal loolu waaw fa tabaarakallaahu kon nag li am ba am mooy àdduna lu ne na mu meloon melatul noonu léegi lu nekk ni mu meloon melatul noonu léegi te ku la wax ni jaaxlewul rekk waxul dëgg waaw nitu yàlla yi jaaxle nañu nitu àdduna yi jaaxle nañu li leen jaaxal mooy lan mooy nitu yàlla yaa ngi ñaan nitu àdduna yaa ngi utiliser seen alal ak seen kàttan te mënuñu fexe ba àdduna bi woyof te loolu li muy wane mooy ni yàlla kontaanul yàlla ku nekk nag yëg nga ci sa xol ni am na luy ñëw loolu lan la kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam waaw moo tax nit yàlla yi yeewu yépp jamono mësee mel dañuy tëju yàlla yi xam xam jamono yépp bu jamono mësaana mel nii dañuy tëju la gën mooy su ñëwee ba taxaw ci carrefour te jëlagul yoon nga tey waaw te àdduna bi li ko jafeel tey moo di kenn doxatul farata kenn laa wax doxatul farata koo gis muy waaxu waaxu bu rëy di dem boo ko seet loolu la muy dox soo ko wutee foo ko delloo rekk ci bakkan la dellu ndax dafa am benn farata bu nga xam ni mooy nday farata yépp waaw nit xëy na ma dem ca marché ba wuti ceeb walla ma wuti dëlwin wala ma wuti tomate pour dundale ko sama njaboot te xamuloo sa bopp xam sa bopp nag mooy ndey farata yi waaw nit nit nit war na xam boppam ba xam noy yàlla dogal mu war koo noy ci kaw suuf mu dog koo jël ñaata la waaw ndax noy yi boo ci génnee rek dootoo ko de mën a dabaatal waaw sa yitte nag war na egg ci xam sa bopp ba xam ci dund gi ñaata noy yi nga ci wara a noy yàlla jël la dafa am benn xaleelu joolaa dina am ci mbooloo mi ñu ko wara a fàttaliku booba ñun ay xaleel yu tuuti lañ ca daara ja waaw mu ñëw fa ñu joxe ko fa mu ñëw ñu yóbbu ko ci daara ji wante nag yàlla joxu ko xel mu ne ci daara ji ba yàgg fi lool te mënul fexe ba mokkal xul yaa ayyuhal kaafiruun mu ni daal ñaara am bu mënul am xam-xam na wut barke comme yàlla joxu ko xel bu mu mën a wute xam-xam mu ngay dem sàkku ci barke nekk ca waañ wa ku pare añ moo lay xoosal sa cin moo la koy raxasal mooy bale waañ wi mooy duy mbànd yi mooy bale kuur bi daf ko daan bale ba di ko lay ba benn poussière du ci am mu jikki xale yi mu tollool mbagg yépp jàppe ko dof mu necca loolu necca loolu ba soxna sa sopp ko jël ko def ko comme doomu boppam di ko xottil di ko may ndékki di ko may añ di ko may reer bu tilimee mu jël yéreem jox ko xale yu jigéen ñi ni leen nañu ko fóot waaw ñi ca xàmmee sax boo ne looy def mu ni damay fóot yére dof bi laay fóot waaye loolu yépp mu boole kook nag waxtu du ko raw waaw te bëccëg bu ne daf koy woor te kenn mësu ko xam ci moom mu neccal loola ba xëy rekk sibbiru sibbiru ñu naan sibbiru bi soxna sa sonn ca sibbiru ba da daan wooyi docteur ba téléphoné leen ma docteur bi ñu wooyi ko mu ñëw sama xaleel bi docteur bi ne bu joxe tay comprimé bu ëllëgé mu pikir ne ca ne ca ba aljuma ci yor yor mu xey rek tané dal di yéeg ba ca kaw fekk soxna sa mu toog mu ni ko ah biig papa alaji malik ak papa khalifa ñëw nañ ba ci néeg bi ma tëdd nee nañu tey suñu jullee saan ba noppi danañu ma jël si fonna na ni ko ah tangaayu sibiru bi la rek mu ni ko ay ay du tangaayu sibiru de te bu san jotee di nga xam ni du tangaayu sibiru san jot nit ñi julli san dem bisu aljuma ba nga xamni ni waaj pour de nek hadratul juma ba nit ñi nek ci juma ja commencé sen wasifa rek mu dog soxna si tàqalikook sagoom waaw te juru ko de keroog soxna si jànn xene ba mel ni dafa xamatul ni yàlla moom moom nit ñi waxtu wu leen neexee jël leen waaw keroog waajum xale booba soxna ca sonn na ca sonn ba dem ji sax moko don dag di ko jël ñuy sang ñuy wax muni bu fekkonte ni won jigen defand góor dagan na tay ji man may defar xale bi keroog guddi goga ñu julli timis ba nopi wajal ko dafa melni dekk bi yëpp ku ne dañ la won ni la gennel sa kër nga dem ci robba ba yonent sax su dee bisu keroog robam du mel noonu te amul xam-xam jàngul dara waaye rek am na pas-pas bu wér ci digganteem ak boroomam yéene ñëpp jàmm di def tarbiya di ko sellal ba xëy nekk wali yu kaamil mag ñi di ñëw di ko seet di wax ak moom te nit ñëpp di ko wooye dof bi su defé nak dama len dan wax rek ma fàttale len ko waaw mat ñi gëm yàlla jaxle nañu kilifa aduna yi jaxle nañu waaw Cheikh El Hadj Malick kat dafa am lu mu wax waaw dafa wax ni unaati wa hal yajdi nitaa axil هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي من واي وما زلت أرجوها من الله وحده فإن لم أنلها فيا مرارة عيشتي xam ni ndegam moom moo jaaxle te defu fi lu aaye parce que maag ñun waaw moo tax nag il faut que nag ñu xalaat di def farata bu jëkk bi te moo di li tubaab di tuddee le check-up quotidien bi nit ku ne séq war a séq ak sa bopp bala nga am contact ak le monde extérieur waaw waaw xanaa xamuloo am na ñoo xam ni laa xawla am na détail yoo xam ni mooy yóbbu nit aljanna waaw bari na détail yu ñu xeeb fekk na balaa la yàlla dugal aljanna nga toppatoo yooyu ba noppi su ko defee nag ay njaboot ngeen occasion la ñu jël guddi gi tudde ko ku màgg ku toll ni yont yàlla muhammad nga xam ni tey ci leeram lañ ñépp ñëpp ñëpp di barkeel waaw bu dul woon ak moom tey waaw yàlla du defar dara wa anta baabullaahi ayyum ri'in ataahu min gayrika la yadxulu waaw ca allaamiyatul bakriya baxda xisbil baxar bi ngeen jàngoon wa anta baabullaahi ayyum ri'in ataahu min gayrika la yadxulu waaw waykat ba dafa wax yonent ni ko bu yàlla doon néeg mu mën ni yaay bunt ba ku jaarul ci yow du dugg fa anta baabullaahi ayum riin ataahu min gayrika la yadxul waaw ma arsala arrahmanu aw yursil min rahmatin tasaadu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi waaw ba ba ba ba ba yàlla defal ko ci lu day ne mag ñi jël ko def ko farata ci ku jàngate xijbul baxr il faut nga jàng allamiyatul bakriya baada xijbul baxr su ko defee nag yonent bi ci boppam dafa am lu ko yàlla jagleel waaw nit nag feddali na wëllëre ba tàyyi ak dëgg te feddalewuloo ko ci lu gën a yey màggal gundi yont yàlla Muhammad waaw donte le bidaa la sax waaye biddaa mustaxsana la waaw mu mel ni nag abdullahi mooy baayam abdul muttalib hashim abdu manaab qusay kilaab murrata kaab luway xaalib ba ba ngay egg ci adnaan ñépp ñu ngi fi mais yàlla daf ko fa jël rek ni ko jikko bi ma gënoon a bëgg mu ngi ci yow te mooy yàgg gën ñépp te mosuloo kenn ba wax ko ko wala nga ko waaw su ko defee nag koo laaj lu tax yàlla bind nit du la ko wax waaw yàlla amul soxla ci nit wante bind na leen te ku nekk xam na ni yàlla du fo lan moo tax yàlla bind nit mu tekki mu tekki amuloo booy kaf ak sa doomu bàjjan wala sa doomu najaay ba mu ni la tekkiwuloo dara jar na fàq yat yi ci àdduna bi yëpp di xare ba ñëpp dajati fa waaw waaw moo tax lu ne mën nga ko tappale ba mu des tekki règle la am boo jaaree ca yoon wa la ñu baax ñépp daan am nga am ko mais boo wàccee yoon wi nag du am dara coono mooy bari ak coow wante résultat du am teg ki nag yi koy maye ba ca ëpp doole moo di pas-pas bu wér ci yàlla ndax kaneen koo am pas-pas ku dul yàlla bu ko guddeeg bëccëg yàggee awante rek mu wàññeeku waaw waaw innal jadidayni ida mastawlaya ala jadidin adnayahu ngeen jang ci seen ibnu durayd su ko defee nag ñaara fi nekk ci takk taxaw pour am pas yàlla yàlla nee na nañu ko informer wax ko li defee nak pas-pas du wir ci yalla so amul pas-pas ci yalla nit ni yow ngay am pas-pas wa nit ni yow ngay am pas-pas te bu boba nak bu boba ñam dugg te kenn warul jaamu kenn ku dul yalla so ame amee pas-pas bu wir ci yalla ba nopi nak lan nga ca wara teg mooy am kilifa am na nag ñu ko gëmul ñu gëmul kilifa wante boo gisee ku ko gëm ak ku ko gëmul dinga leen xàmmee kii bu yorul dara it su tëddee xelam dal mais ki amul kilifa bu yoroon àdduna li ci biiram itam su tëddee du nelaw te kilifteef alquran moo ko cautionné ndax moo wax ni farata ñett la bu jëkk bi mooy falyabudu rabba hadal bayt kilifteef dugg ci alladi atamahum min jooyin mburu dugg ci wa amanahum min xawfin wóolu te dugg si ñett yooyu mooy soxla nit waaw principe bu wóor boo tënk sa bopp ak mburu moo xam ni bu sa yaram doyadee nga nga dëgëral ko ci ak wóolute nit nag dugg na ci néeg tëj kook caabi te wóoluwul waaw ndax yàlla wax na ci alquran ni nee na ma doomu aadama fexe ba toxu ci jaww ji romb ko yomb ko toxu ci jéeri ji yomb ko toxu ci géej gi yomb ko wa hamalnaahum fil barri wal bahr bu aaya bi doon tey wal jaw wi dina ko ci boole <laughs> hmm. Hmm. muni ma fexe it ba mu ragné li muy xewlo la ko ci amal njariñ ak la ko ci amalul njariñ wa razaqnaahum min at tayyibat muni ma fexe it ba xamal ko ni mbolem la ma bind la ci ëpp yama ci gënal وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً loolu yëpp nag lu tax mu ni di ko xaare bis bu nga xam ne nii mu ni nit ku nekk ci sa turu ilimaan laa lay wooye kon bëccëgu keroog ku amul ilimaan war a am loo xalaat yow mën na doo kulla unaasin bi imaamihim waaw yàlla nee bëccëgu keroog danaa taqale dëgg ak neen ba ku ne sa carte d'accès nitu dëgg yeeg nitu neen yi sa carte d'accès côté bi ma la koy joxe di bokkeek bu may joxe sa moroom ndax bëgg a taqale dëgg ak neen kon nak fa man ya kitabahu bi yamini fa ulaayika yaqra'uuna kitaabahum wala yudlamuuna fatila mu tek ci doole nak ni ñama ñamay jox carte d'accès nga xamni bu ñuy dugg aljana du ñuy rang waaw mu ni waman kana nak fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila muni ni yonent bi taxawal mom yàlla ah taxawal wa in kadu la yaftinunaka an alladi awhayna ilayka li taftari alayna ghayrahu muni ko idan la tahaduka khalila muni ko nit ñi balañ la baye da fi tek lima la jox dem fekk ñoom la leen yitteel nga nekk ci guddeeg bëccëg te jaral na leen provoqué la ba génne la dëkk waaw te bis boo ko defee nag di seen xarit mais da ngay tànn nag xaritoog ñoom ak xaritoog man bu la ci gënal mu ni ko wa in kaadu la yastafizuunaka min al ardi li yuxrijuuka minha wa idan laa yalbasuuna xalfaka illa qalila mu ni ko daañ ci dema dema dem ba li ñuy bokk bokk ak yow daañu la génne waaw mu ni waaye du leen tax a jat leen tax a jat mu ni ko waaye nag loo ci man mu ni ko ñi ma yónni ñëpp foofu laa leen jaarale léegi nag mu des benn question bu ñu war a poser tey moo di ndax nekk na lu nécessaire ci jamono ji ñu nekk lislaam ñu def ko diine pénc question bu garaaw la ci doomu daara posé ko ci milieu bu mel nii boo xam ne nit ñaa ngi fi daje di màggal guddik yont yàlla Muhammad est-ce farata la pour l'islam ci forme bi mu amee tey ñu def ko diine pénc que soo amee projet de société war nga mëna wax nag ñi ngay waxal ni dama bëgg seen pénc mel ni pénc sàngam te ci jamono bii ñu nekk pénc mu incarne lislaam amul nit ku incarner l'islam mo am mais société bu incarner l'islam amul yalla te yàlla wax ci alquran aya bu doy war wala sha rabbuka لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين maneen ba ca des mooy mag ñi dem nañu ba gëstu ba xam ni clôturer nañ dossier yépp lim bi dem aljanna dootul yokk lim bi dem safara dootul yokk xanaa kon yàlla noppi na démb ba kon lu nit di sonnati di wut ñoo koy organiser ñu nekk ay jullit di génn fii di dem gannaaw clôturé nañ dossier bi yonent bee ko wax jëfal xalam waaw yonent bi nee na plume bi ñu daan soos ci daaj yi di ko bindee bañ ko wéeree ba mu woweeg léegi ay siècle la mu mel ni nag laaj nañu def ci débat xamna yont yàlla muhammad waxna ci ben hadith ni sayati ala an-nas zaman la yabqa min al islam illa al ism wa la min al quran illa al rasma yonent bi neena jarul jarul sonn ben coono bi parce que jamono ngi ñew l'islam tur bi rek mo fi def alquran lettre yi rek mo fi def mais ruux bi esprit bi dafay dem mu ni bu boba nak ñu ni ko ya rasulallah bu boba lan nga nu digal ñu def ko mu ni na ngeen ba ni laltu mel ak teg ngeen mel koog seen néeg xam nga laltook teg du ñu tàqali ko mu ni bu boobaa suñ ca eggee ni laltu mel ak teg na ngeen ko mel ak seen néeg toog leen ci seen néeg jullee fa defe fa la ngeen def mais bu leen ko génneeti ci pénc ba xanaa bu boobaa kon ñu war a tëj jàkk yépp waaw waaw bi ci des nag ci li ñuy justifier ni li ñoo laaj parce man jàpp naa ne lislaam jaratul génne ci pénc mi lu tax parce que ñaara am waaw ku feebar walla ku lànk yàlla nee na ki lànk nañu ko bàyyeek man bu ci seen yoon nekk ndax kooku su ngeen demoon ba teg seen loxo ci dëgg gi lànk na mu ni bu dee ki feebar nag mu ni kon nañu dem seet doktooru ruux ñu jox ko ko pour mu faj ko waxul sëriñ de waaw waxul sëriñ waaw parce que nekk sëriñ yomb na léegi boo solee mbub mu rëy sol mbaxana kaalawu rekk sëriñ nga léegi yàlla boo ca boole am sikkim bu rëy def daf ni nañu seet doktooru ruux jox ko ko mu faj ko waaw bu ñu demee ba ci jamono bu nga xam ne nii ki nekk doktooru baatin yi nit ñi dañ koy féetale parce que neexu leen kenn ku ci nekk wut sa docteuru bopp bu ñu demee ba ba ba anarchie egg foofu ci dund nag bu boobaa ñi feebar nan lañuy ñu def ah dañuy dee parce que coow li dafay bari ba dootoo xam jàngoro ji la ame kan moo ko mën a faj ci ñi nuy wax ndax kenn ku ci ne wut nga sa nit kaala ko tëj ko ci néeg wax ni bu fëggee bunt bi yàlla ubbi ko lan mooy wax nit ñi ni leen kii mooy ki nga xam ne ni moo mën a faj jàngoro nit ñi bu boobaa te cër nag doo ko jox ki la neex da nga koy jox borom ah boo ko defatul nag xanaa dem jox ko ki la neex ah nga taxaw fa la di wél-wél ak sa gémmiñ gu rëy borom cër bi itam jàpp njàmbaram taxaw di la seetaan waaw te kenn mënul serloo sa ker mënul nag nit du serlu ci karam waa dangay fekk keru jàmbur rekk nag nga dugg ca waaw moo xam garab la walla nit ni yow mais kenn mënul serlo sa ker waaw moo tax li gën a metti ci àdduna bi ñu nekk moo di nga dem ba natt ki yàlla dénk jamono wante fekk jege nga ko ba loo wax ñu defa ni jege giñ ko jege moo tax lu metti la lu metti la su ko defee nag la waaja waxoon rek moo ci nekk يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي ذاك ممن يعبد الوثن ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا زين العابدين دفا غير rek wax dëgg waaye booba dëgg ga dafa wuuteeg luwaa ñu jàpp ko condamné ko yóbbu ko ba ca pénc ma wéer ko ci ëkk jël bal ni ko tëf ba ñu koy yanoo nag di koy yóbbu nag mu ni xaw ma ni woon danañ dem ba jamono yàqu ba ku wax dëgg ñu rey la waaw mu ni te bu fi ay borom pas-pas nekkoon xare pour ma mucc waaye fi mu ne kenn du gor man mi wax dëgg rek maay gor yonent bi dafa am ay séminaire yu muy tëniir di ko tenir rek awliya u yi yàlla am ci kaw suuf moom yonent yàlla Muhammad ba tey day am séminaire mooy ay daje waxtaane benn sujet bu ñu paree ñu tënk waxtaan wi yëpp ci benn kayit bënn gën yonent bi daf koy def ak awliya yi yàlla am ci kaw suuf séminaire yooyu dañu confidentiel ba nga xam ni téere yi sax duñ ko indi kon kay soo taseeg nit ku cay participer tey dund comme yow di la wax yëf ya na mu demeek na mu tëdde ah boo maandoo booy wut ku dox sa digganteeg sa borom boo ko fa wàccee doon nit waaw te mbooleem ku yàlla bind tey ci ñaar lañ la tënk ci xatm ak kitmaan waaw وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيضان كنت نك يدا منها إلي تفضلا واردد بها وجدا بلا حسبان وما بال مثلك بالإباء وقد غدا يزهو بأدنى جودك الثقلان كم مسكو وقتك وسوء waqad ghada yazhu bi adna judika thaqalan ken musuko koo gis di yalwan nit waaw ni ko xamna ni do bañ ndax ñi tabe ñepp ñepp ñepp ca sa defit ya nga sanni ci la ñuy nër nëri ba nit ñepp top leen a ñi tabe ñepp ba ñu naw leen defit ya nga sanni ci la nekk di def neuf neuf neuf ba ñepp daw top leen كن ما بال مثلك بالاباء وقد غدا يزحق ان لك قد اتاك مبصرا خير الورى بالختم والكنان ولحق ان kamu basiran khairul wara bil qadmi wal kitma wal haqqu annaka qad ataka mubashiran خير الورى بالختم والكتمان وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيدان فامدت يدا منها إلي تفضلا وردت بها وجم بلا حسباني ما بال مثلك بالإباء وقد قد يزهو بأن جودك سقلاني فالدهر دارك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتي ميزاني فتقلبا فيما تسعى وتصرفا من عالم الأرواح والأبدان بل وزعا هذه الأجور تكرما بين الرجال وأم بالتجان هذا رسول الله يوم نزله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العصمة التي ما بعد للجنس من قربان والحور من بين النوافس في الحمى متفرجات في ككل الولدان وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الإعلان معنا كيب كو يالا بند ci ñaari cadre yooyu la la tënk mu ak li ñu tudde kitmaan waaw ah, am na ñoo xam ne li ñu bëgg mooy génne ni dàng ni jant yoor yoor ñépp gis leen waaw ah, ni mu amee ci nit yi ordinaire yi noonu la amee ci nitu yàlla yi moo tax yàlla yonent yi muy yónni te kenn xamu leen mën nañoo lekk ñi ñu xam waaw te kenn xamu leen te yàlla leen yónni kat jox leen nubuwa bu toll ni bi mu jox yonent yi ci def yëpp mais kenn xamu leen parce que ñoom boobu lañu tànn waaw waaw waxumal xéewal benn gis ko wala mu nëbb waaw waaye xam nga ni may nit a ngi yam ci fexe ba séminaire yi yonti yàlla Muhammad di tenir ci barzakh diko ten ak nitu yàlla yi ñuy yabale ay nit Sénégal ñuy dem diko fekk ji hada rasulullahi yowma nuzulihi mutaqallidan bilxaqi walburhaani waaw waaw nee na mu nga takk ca baat ba benn caq bu ñuy wax dëgg boole kook argument yam ko booleel moom yonent bi waaw yonent baa ngi ñëw war a présider séminaire bi mu nga takk ca baat ba caq bu ñuy wax dëgg boole kook nag alxijaaj wal barahin argument yam war a àndal mutabassiman nee na yonent baa ngi muuñ lu tax faraxan waaw faraxan bi safi malaa'ikin basatu ilayka akufahum bi tafaane nee na maa ngi ko séen malaayika yi di ko tàllal loxo ku ne bëgg koo raay barkeelu ci moom waaw nee na yatalaqanuuna salaataka al udma allati ma baadaha lil jinsi min qurbaani waaw nee na ñoom malaayika yi nee na ñu ngi sawante nee na sa salaatu boobu nga xam ni siira bi tey tey li jamono di lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm lu alquran mënula def ci xolu nit salaatu salaatul fatih mën na ko def ci xolu nit يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قربان والحور خمو جيس nga mën nga jéxal téré yépp te fekk na xamuloo dara waaw alxuur xuurul ayn defe nga ni yàlla yàlla ni mu xameek ni mu mëne ñu naan ay jigéen lañ yoo xam ni seen bët yi nii la mel nangama nangam ñooy nekk jabari jullit yi fële ci àjjana yàlla bu dee loolu rek moo tax mu di yóbbu àjjana na ko bàyyi parce que jabar am na fii jigéen ju rafet kay fii la fekk baax wante dafa am ñu déggul alxuur mooy jigéen ñi sell ba bëggatu ñoo daje góor gu sellul ñu ñaan yàlla bu mu leen indi aljanna mu faf leen bu mu leen indi àdduna mu faf leen yamale aljanna am na jigéen ñu sell ba bëggatu ñoo daje góor gu sellul comme ñoom te bu ñu ñëwee ci àdduna daje góor gu sellul comme ñoom ñu faf nag jaayanteeg seen digganteeg seen borom pour yàlla faf leen bàyyi aljanna ñu xaar góor yi sell yi mat nawle comme ñoom ba bu ëllëgee bu ñu ñëwee fekk leen fa ñu sëy ak ñoom نين جيجين نيو نيو نيو سبو نك تفنيتريا والحور من بين النوافد في الحما متفرجات فيك كالولدان نين نيو نيو لأي سيطان نحل بنداو دي سيطان تمكت تنين بوبا وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الإعلان كروك يننتي بلمو تد تد دفا يكتي مبام صلالكو nee na wa bi wajhika saafi wa bi wajhika saafi bi wasfin baahirin ummul kitaabi bi xattiha nuuraani waaw te nee na booba sax kanam moo incarné li nga xam ni tey bu doon dañuy wax naan alquran mooy quintessence am moo di alfatihatul kitaab booba sa kanam gi ku ci xool rek xam ni ni muy lex-lexee moo moo incarné fatihatul kitaab su ko defee nag lu tax nit di jaamu yàlla foofu la affaire bi nekk parce que yàlla màgg na ba amul ku mu waxal wante bëgg na ku ko wettali loolu moo tax mu bind nit pour mu incarner ko bëgg ko mu waxal rek màgg na nag ba amul nawle moom yàlla wante bëgg na ku mu waxal loolu moo tax mu bind nit pour mu nekk interlocuteur am wan ko nag ni ko sama digganteeg yow asservissement moo ci am mooy mënuloo ma génn ci usines yi sax am na ci xamuloo am na usines yoo xam ne bala ñoo produire yeneen usine defar matière première bi jox leen ko ba pare ñu doog a mën produire waaw boobu collaboration moo am diggante yàlla ak nit bit bu ne ngay gis ku julli bopp bi jaaw ah te bu xolam tàngee mu saaga te bokkul ci màndal ga taxe dama ne bis bu ne nga gis kuy julli dàq julli julli kaata ba bejjaaw weex tàll te bu xolam tàngee mu saaga te loolu li muy wane mooy julli gi li mu war a def ci yow defu ko ci yow parce que état la état la bu mu lay yóbbu waaw boo xiifee xam nga am na état booy toll boo demee lekk état bi du changer ah ni nga koy yëgee nag ci lekk gi noon nga war soo tàbbalee tisgaar gi ñëw yëg lu tisbaar gi yokk ci yow so tabale takusan ji nonu so tabale timis ji nonu so tabale jinonu, sota nonu so tabale suba gi nonu fuñ koy xamé ci yow nak ci jikko parce que yalla julli du yobbu nit ci yalla ma wax len ko tay jikko rek moy yobbu nit ci yalla Yeah. Hmm? bo amé jikko bi ba nopi nak nga doga julli waw ilayhi yasadul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u watna ci yalla ni bu ngeen xamone li neex ci alquran de ngeen di tëj téere yépp di jàng alquran motax nak bala nga jóg pour nekk jullit nag pour jaamu yàlla war nga am baas ndax ku indiwul dara kenn du la won sa place foog nga am loo indaale kilifa gi dafa wax ni nee na ñett ci safara lañu nekk boroom xam-xam bu yilif ñu amul xam-xam bu ñaareel bi mooy gor su baadoo la yilif bu ñetteel ba mooy gor su am ba mu yàgg nga ñàkk moo tax ci cadre formation la gën a néew ci li ñuy njëkk a defal ci yow buñ lay forme ci wàllu yàlla mooy fexe ba boo gisee nit su reeree bi nga xam ko su reerul nga xam ko waaw waxuma reeru ñam nag am na ñu defe ni ñam rekk mooy reer mais am na yeneen reer yu dul ñam waaw am na ñoo xam ne ci fande lañ dëkk bu ñuy reer di sol seen pyjama mën waaw reer reer bii su ko defee nag jig ko boobu pour ñu def ko ci nit bakkaar gënul rëy nit ñi yow naan la fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar yàlla dafa wax ni kenn ku ci ne def naa ci yow intuition intuition bu lay xamal fan ngay jaar ba egg ci man mu ni kon soo jàddee rek sa environnement moo la rey kullu mawludin yuladu alal fitra moo tax bokk bokk ci bàkkaar di waar parce que danga ko bëgg a wax fi muy jaar ba egg ci boroomam ndax nit ku ne la yóbbu ci sa boroom yàlla def na ko ci yow ba noppi yow yaa koy mu dund walla sa environnement ñàkk def ak yow coopération ba mu dee moom la ñuy wax fitratallah allati fatara annaasa alayha وتاك كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه القرآن بمجيخ جيخ مو موتي nek wa mais orientation amu ci tax sa doom alquran ba mu jeex nag information amu ci ba pare nag mu teg ko ci kaw principe bu nag bu contrainte am waaw nañu informer nit ñi rek te bàyyi leen ak seen intuition parce que moo ëpp doole téeméeri junni yoon waaraate yi ñu leen di waar bi ca gën a metti nag ca senegal mooy ñun ña suñu maam yeeg suñu maamaat yi daan waar ba nëgë ne ñooñu la ñuy waar te ki ñëw ba noppi kay jaratul waar ñun li waroon tey mooy ñu dem Afrique du Sud bu ñu demee informer leen objectivement pour ñu xam lan mooy njariñ yi nekk ci lislaam pour que ñu nekk jullit waaye dëkk ci ñoo xam ni boo tuddee ñu fett su guddeeg bëccëg nga di leen at mu nek nga dépensé ci ay milliards yu dul jeex mais kooku yalla du ko cautionné du ko cautionné maa la ko wax waaw at mu ne au Sénégal ñu organiser ay cérémonie religieuse yu dul jeex mobiliser tout le monde dépenser ci milliards yu dul jeex pour lan war ki ñëw ba noppi te yàlla li mu wax mooy booy waar waaral ki xamul li xew nga dem Afrique du Sud wax ñoom informer leen objectivement wax leen fan la ñuy jaar ba juboo ak seen intuition waaw parce que nit soo ko orienté bakkaat bi ci nekk mooy da dul xam intuition mook sa bos benn lañ wala déet te soo koy orienté ci ni la sa bos di digal rek noonu nga koy orienté bu fekkee du ngeen benn nag te ni rëddi baaraam yi wuutee noonu la intuition yi wuutee ah waaw bi ci des mooy aada Sénégal aada rey na leen bu mënatuñoo jariñoo xaqiiqa waaw da ngay fekk sa sëriñ mu ëpple la fuuf boo bayee ba bay ba jeex nga xaaj ko ñetti xaaj benn ba ngay jariñoo ñaaree nga dem jox ko ko àdduya te mën na laa yor di la dundal ba ba ngay dee yàlla waxul loolu dafa wax ni ki nga yaakaar ci wàllu yàlla su fekkee yaa ko tane Ah, dafa wax ni ki nga yaakaar ci wàllu yàlla su fekkee yaa ko tane soo ko mënee dimbale nga dimbale ko mais boo ko tanewul nag bis bu ne nga gis Sénégal kuy dimbale ku lorwul yàlla taxatul parce que yàlla def la ni nañu dimbale ki lor booy laaj jàkka woote ci néeg yi ku la jox cinquante mille francs ci néeg soo tàntoon ca mbooloo ma un million la lay jox hmm? waaw te boo ko waxee àdduna tukki soo ko waxee rek àdduna tukki maa la ko wax il est grand temps nak ñu informer nit ñi objectivement waaw pour ñu xam ni nag yàlla du waaw mais bàyyi la waaw bàyyi la bu am sentiment ci ñi mu bind comme ni ndey bi jur ak baay bi jur amé sentiment ci dom bi ñu jur waaw ñu jël problème mu àjjana teg fële jël problème mu safara tek fële fab n'ak li neex ci xaritok yalla te mooy boo xasee xaritoog yàlla mu fexe ba dootuloo ragal dara ci àdduna bi dara dootu la mënal dara waaw waaw ndax Seydina Omar dafa nekk amiral muminin benn buur di ko dégg ci àll ba naw ko lool ndax faydaam moom Omar ibnul Xattaab xëy ni kii daal mësuma ko gis mais sopp naa ko ndax fayda bi ma dégg ci moom bind benn leetar pour fasanteeg moom wóllëre jox ko benn nit ni ko boo demee ma dina nga jox ko Omar ibnul Xattaab mu takk gëléemam di dox ba bi may laata ak si Madina fajar jot na mu ñëw ne ana Seyduna Omar ñu ni ko demal seet ko ca jàkk ji mu ñëw jàkk ji fekk leen ñu julli suba ba noppi mu ne ana kilifa gi ñu ni ko ah fii la doon julli léegi de waaye mu ngi jëm ci biir këram mu ñëw kër ga euh, waa kër gi ni ko ah, fii de la doon ndékkee léegi waaye mu ngi jëm ci marché bi mu ne waaw kilifa gi laa wax ñu ne ko waaw kilifa gi lañ la wax mu ne ah, man kii ma ni moo ëpp doole ci àdduna bi te moom naw na koo nawa nawa naw ba jox ma lettre bi ma ñëw ñu naan fii la toogoon ak demal ca marché ba ak duggal fii ñu ni mani boo ko yittewoo demal ca marché ba mu ñëw ñu ni seetal palaasu Habib Diop mu ñëw Habib ni ci banque bii la toogoon léegi nii laa aw mu di ko topp fii la aw fii la dugg fii la aw fii la dugg ba mu fekk ko ca taatu garab ga mu njeganoo bët di nelaw mu ni kii mooy Omar ibnul Xataab ñu ni ko waaw mu ni kii mooy Omar ibnul Xataab ñu ni ko waaw fa Seydina Omar ni tërët ci nelaw ni ko lan la mu ni ko leetar bi yaa mu daal di koy ubbi jàng ko wax ko lu mu mën a doon mu ni ko waaw xanaa da yéemu ci sama xaal mu ni ko man kay maa ngi bëgg a dee fi ma taxaw mu ni ko lu tax mu ni ko kële ni mu la nawe ba ma defe ni bu ma ñëwee danaa fekk garde yu ëpp yi koy garde téeméeri junni yoon di la garde ma ñëw fekk région bi yëpp yaakaaruñu ku dul yow nga yor leen seen mbir yëpp nga yor ko amoo looy def lu muy sa xel dal ba nga ñëw fii ci taatu garab gi njeganoo doj di nelaw Seydina Omar ni ko ñett tax yàlla ma ci gëna doy kaneen ku dul moom mm-hmm. mu ni ko bu ñetteel bi itam bu yàlla dogaloon ci man safaan mu ni ko ah, mu ni ko dinaa ko gërëm comme ni ma gërëme su yabaloon ci man li may xaar mu ni ko ñett yooyu tax fu ma nelaw rek mën a nelaw nga am nañu dem ba seen wóolu teeg seen boroom egg ci ñu xam ko ku mel ni Seydina Ali dafa wax ni nee na yàlla bu ubbi woon rido bi ni ma maa ngi dootuma fi gën a gëm dootuma fi yokk wóolute law kushifal gitaa ma dëttu yaqinan waaw su ko defee nag problème mu lislaam ci jamono ji ñu nekk dootul problème mu julli kese kese dootul problème mu woor kese dootul problème mu génne azaka kese kese dootul problème mu dem màkka kese kese mais problème bi mu ngi ci nga xam fan ngay jaar ba dëppoog sa intuition parce que sa intuition ñu ngi ko dagge ci ci tabia yàlla kon boo dëppook moom rekk fooy jaar ba fekk yàlla du jafe pour yow ah kooku nag il faut nga jox nit ki indépendance am mais doo ko bundu ndax yonent bi bi mu demee ba bëgg ñëpp nekk ay jullit mu bëgg a bundu xataal ñëpp yàlla daf ko ni lasta alayhim bi mu saytan moomu nit ñi waaw wante nag sëgg ba sëjjee dar waaw xëcc per ba sa baaraam bi nor te xamuloo réyalité yi kooku kooku retard bu rëy la waaw ah. ah. gis nga am na ñoo xam ne nit ñi dañu defe ni ku ñu séenul ngay waaxu yor saak di wër ñu naan diw jaar na fi dem na fi rek nekkoo ci dara ah. am na ñu mënula dem fenn ndax ñàkk jot am na ñu mënul a toog fenn ndax ñàkk jot waaw bu ci ne nag yàlla dana ko cautionné waaw xam nga dégg ngeen wax bi wala déet dama ni am na ñu mënul a dem fenn mënuñoo génn seen néeg dem fenn ndax ñàkk jot waaye am na ñoo xam ne itam mënuñoo toog seen néeg ndax ñàkk jot waaw te àdduna ñaari yooyu fi nekk waaw dirham lil maaj wa xasanatun lil maad waaw dirham lil maaj wa xasanatun lil maad waaw yii wi ngay dawal ci sa bàmmeel mu jiitu la fa boo demee fekk ko ak gërëm bi nga xam ni bu sa yaram nasaxe nga dem ca marché ba jënd ci mburu ñëw dëgërloo ko waaw su ko defee nag mag ñiñ ci am Sénégal kenn du ñoom malheureusement malheureusement seen njaboot dégguñu leen malheureusement je dis malheureusement pour les Sénégalais dégguñu ñi leen yàlla sedd xam nga sànq rek dama toog ak benn nit ca Dijon midi ñuy añ ci benn restaurant végétarien foo xam ni duñu togg yàpp restaurant la bu nga xam duñu lekk yàpp ñuy waxtaan di waxtaan ba ci digg bi mu di ma wax yi yàlla dig nit ñi te eggaguñ ca moom la bëgg ma ubbil ko ca tuuti tuuti yàlla dig nit ñi te eggaguñ ci ma ni ko yaa ngi koy dégg ci yim leen dig te ñu yegg ca te ci rajo laa ko déggee sunu baay bu baax ba sunu maam bu baax ba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu wax ko maa ko déglu ci rajo Dakar kenn nettaliwu ko mu ni ba nëgë ni wax bi dama koy nafar mu ni yalla ba mu ne kullu nafsin dha'iqatul maut batay ken gisagul sa maami mam <laughs> mom seigne Abdoulaat moo wax ken netalu moko ko deg muni kon nak yi mu wax te ñewagul batay nonu rek lay dem <laughs> ku nek nak ak la nga ragal ak ka nga ragal waaye koo yaakaar nag sa digganteeg yàlla dañuy wax ni na la def nawle bu la deful ñawle la rek njaam dugg te kenn warul jaamu kenn ku yàlla kenn warul jaamu benn mbindeef ku dul yàlla moo tax ki ngay yaakaar ci yàlla dafa am lu mu la ëppee rek ngay ñëw pour def formation ci moom ñaan yàlla dem ba am aptitude bu toll nii fa muy tibbe bu demee tibb nga dem tibb waaw parce que formation continue mënul nekk. ndëkk ci formation le góor gu baax ga dëkkoon tiwaawan daan wax ngeer a ngi ngeer a ngi ngeer a ngi ngeer a ngi ngeer a ngi ngeer a ngi mu ni kenn mënu cee dëkk dafay laaj nag bëccëg nag bu ñëwee nga ne ah lii de defe naa ni ngeer la ñu ne ah ndika xam nga ko kat waaw ah gis nga xam sa bopp moo dàq am alalu àdduna ak li ci biiram parce que ku xamoon sa bopp doo xam yàlla waaw gis nga nit tedd na ba bu tuuree ndox sax war na seet lan moo différencier couleuru urine bi tey ak bu démb ah parce que danga xam yi nga war a wàññi ak yi nga war a dolli nga defe ni danga koo tuur noonu rek comme ça pour taxal parce docteur boo demee feebar lu muy njëkk a def set sa urine ba xam lan moo la jot waaw léeg danga koy tuur mu xaw a jaune ambre lëf nga seet ndax normal na wala déet ëllëg sa nga def ko mu xaw a sàcc orange gannaaw su bëgg nga def ko mu rouge loolu lépp ci nga war a sukkandiku pour xam ban orientation moom nga war a jël bëccëgu keroog. moo tax tuur ndox yombul. yu àddabaani wa ma yu àddabaani min kabiiri yent bi dafa romb ñaari bàmmeel ni yàlla xamal ni ma ne ñaar ñi ñu ngi leen di mbugal te kat defuñu bàkkaar bu mag sax yuazabaani wa ma yuazabaani min kabir mu ni fa amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma al axar fa kana la yastatiru min al bawl waaw yent bi def ni ñaar ñee ci biir bàmmeel ba kat yàlla xamal na ma ni ma ñu ngi leen di mbugal te kat defuñu bàkkaar ba ma kenn ki dafa daan wër di rambaaje ay diggante nit mu ni ku ñaareel ki dafay faral di tuur ndox te du setlu mag ñee ko firi setlu ah? ak ferlu du benn takat lip mu ngi dépendre ci nit ki yàkkamti na wala wul deli bu nit def ci àdduna bi boo dee wut ci défaut boo ko delloo mu ngi dellu ci yàkkamti bakkaar bu nit def ci àdduna laa waxa boo dee wut foo ko delloo cosaan ba mu ngi ci yàkkamti waaw moo tax yàlla ni ci lay xàmmee ñiy yegg si àdduna ñu dul yegg si parce que ma bind nit ci yàqam ci maa ko def exprès pour xam kan mooy def effort ba génne défaut boobu ci moom xuliqal insaanu min ajal mais mu teg ca nag bu leen ma band baraj sa uriikum ayati fala tastaajiluun moo tax saw sax soo amul temps pour jël sa disposition ba def ko ni nga ko war a defe yaa yaa xar yi yéen a yem waaw jarul ngay làqu ci ak taxawal rek fi nga taxaw rek def ko ci sa tubéy benn yoon parce que c'est la même chose ndax soo yàkkamtee ba defuloon li nga war defe booy jóg rek muy dellu soo ko seetloo nag ci ni vessie bi bindoo la waaw moo tax toujours dañuy laaj sax position yi ñuy def pour tour ndox ban moo ci gën a adapté wu ak forme vessie est-ce que nit dafa war a jonkan wala dafa war a toog toogaayi ku mel ni lu ku toog ci ban wala dafa war taxaw nit yàlla yi dem nañ bay seet ban moo ci gën a dëppoo ak tëralinu yàlla ci ñetti taxawin yooyu tuur ndox waaw am na ñoo xam ni ba nëgëne dafa nañ ni wokkatu yàlla du ci yool nit amna ñu dem ba defa ne xasan nga dawale sa baram bomb ko bu baax mu toxu nga top ko xasan bay toxu ci jaamu yàlla la bok ar pire mom xasan waaw moo tax dofa ngi egg ci nag mu xasan ba noppi nga yëg ko di woon nit ni yow naan ko wokkal ma fi parce que bu toxoo du ko xam moo tax maa jasadaka mislu sufri bu ko xasanloo kenn wakkal ko sa bopp bu toxo xam nga fa mu ne nga toxal baaraam waaye du foofu demal ci kaw wàccel ci suuf لقد جربت الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء متى إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أو لام الصديق فأكثر وصار على الأدنين كلا وأوشكت صلاة ذوي القربى له أن تنكر كنك فرح في بلاد الله والتمث الغنى تعيش ذا يسار أو تموت فتعذر موم لبول فاليري جنجو تشو حمب موني روغ موم موني il n'y a rien de plus fécond que ce qui permet aux esprits de se diviser et d'exploiter cette différence. cette division. Il n'y a rien de plus fécond que ce qui permet aux esprits de se diviser et d'exploiter cette différence. cette division. Même s'il n'y a point de référence commune qui les oblige à s'accorder. dundu harmonie harmonie pure ah bokk yi tabaarakallaahu tabaarakallaahu dañu fi am tabaarakallaahu mbett mu neex suñu xol ndax dañu ni bukki da doon wuti lu mu am waa yàlla dogal rek mu am lu mu fakkataloo tabaarakallaahu nuyu itam yàlla na ko yàlla aar te musal ko sunu sëriñ daf fi teew te moom mi bu xisee ba teew شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه مامم سرين باب كرسي شيخ الحاج منصور شيخ الحاج عبدو اك سيني دوم تيونا موي شيخ محمد المنصور بيغا خامني cheikh al xalifa radiallahu taala doomam bu musaan am doom yoonam du nekk ci tur looloo tax bi su juróom ñaaree moom mi ñu doon laaj ku muy tudd sëñ Babacar ni laaj leen ko Cheikh El Hadj Mansour ba Cheikh El Hadj ñëwee nodd ci nopp bi liqaam ci bii ni tudd naa ko Mansour sans mas sëñ Babacar ni faf ah tabaarakallaahu Cheikh Mouhamadul Mansour moom nga xam ni Cheikh Mouhamadul Mansour bu seydo ba kër si la ko seex alxaaji Mansour mamam ci ndokkelu cheikh ahmed tidiane si mo fi tew di sunu serign nak tabarakallah ah liit nak suñu xarit sunu sëriña waaye ah sunu xarita ah moom daal mënuñu cee sori waaye ngeen xam ne daal ah baax na de ndax xam naa ni bu dul woon taabal ji moom defe naa ni <coughs> ndax damaa téléphoné xalifa mbaay ni ko xam nga lu mu doon wax ma lu wóor laa mu ne ah, moom daal xam nga moom waxuma dara ñetti fan a ngi ma ni ko boo demee mu ci biir kër gi daa xam ni rek bu fi nekkee kar karr dana ko rek la jël waaye waaye xalifa mbaay wax ma lu wóor mu ni de ñetti fan yi gisuma ko ma ne waaw baax na a ah, nu jekki rek ba yàgg rek mu ñëw e su ko defee nag loolu bénéfice la yàlla na nu ci yàlla defal yiwu biir ak yiwu biti a ah, comme teew na nag nu bàyyi ko kàddu gi mu nuyu njabootam nuyu itam nu siyaar ko ñépp dugg kon nag sëñ bi mbooloo mi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp la nga ñu ngi lay siyaara tabaarakallaahu di la ñaanit nga nangul nu suñu siyaar ah la ca des nag nit loo ko kon wax rek faf ko def ñaan ñun daal dañoo gën a tànn rekk faf di leen ñaanal yal na yàlla nangu ñaan yu yiw yépp waaw ah, te def jàmm def barke def wéttal def gudd fan def wér def fajug aajo ah kon nag lo rek lañ ci amoon ñu doon ñaan nak bayiko ak kaddu gi sëriñ bi dëkk baa ngi nii ñëpp ñëw nañu ñi fi jëlën parole jël nañu parole ñepp ñëw nañu suñu mbokki tidiane yi ñepp ñëw nañu suñu mbokki jullit yi ci dess di mourid e qadri ñepp ñëw nañu ah gis nga kilifa yi fi ka sa papa non soutien rakki Abdou Diouf a ngi nii ah ambassadeur baa ngi nii ah ñëpp a ngi nii teew teewal ko te barki dem rek la ñëw tiwaawoon sa maam abdu teeroo ko ca rawdu Serigne Babacar mu ni dama ñëwoon doon leen seet si mu dugal ko ca rawdu ba ñaanal ko ba yendoo ko ba ngoon a ah, ni koy incha allah yaay delsi ñu ngi nii toog ah ñëpp daal ñëw nañu kon nag mbir mi moom tabaarakallaaw ñun ñëpp nu bokk déglu sunu kilifa sunu sëriñ mu waxanteek nun lu mun wax rek nu taatan ko say jurit say way jurit ñu ngi lay nuyu di sëriñ Mansour Mbooro laa ko fekk sëriñ abdu lu nekk daj na ko ci yoon wi lu nekk dafa mujj sax bëgg a téléphoné ñii waaye rek faf rek mu yebal aadama Fall mu dox lu mu war a dox ba lépp leer ñu ñëw ci avion bi ngir yàlla xam ni lii service la tabaarakallaahu et yéeg ci say activités itam ak sa wéttal tabaarakallaahu kon nag moom it mu ngi lay nuyu sëñ Mansour a ngi lay nuyu sa maam Abdou ngi lay nuyu rekk mu ngi lay nuyu waaw moom daal bu la ñooñu nuyoo ba noppi mu ngi lay nuyu